kooro gay molum gech o haj ibrahim gay ñong ci wiras bu mujj bi ne tollu nañu ci wor wacc manam bés buñu wor dotuñ ko worat wor wacc o dg fi la kar kor gi bu ci yegsee rek xolam fi xati baraka rasulallah ben yaar yett yett wor wacc kor gi jeex na <laughs> metti wër na tey lay woor woor bi spécial o DG moo ngi naxante xelam rek comme li des bariwut bëgg na ko muñ ba dal ci ànd ak loolu dal ci laylatul xadri bés bu gën junne weer o DG ay saaku suukar keesu tàndarma la wàcce ci rajo bi dajale ay liggéeykatam lépp tàmbale di distribuer am na ñoo xam ne léegi tey ñu commencé kaas da ngeen war a yokk xeetu Seydina Muhammad séddale gi c'est simple borom benn benn borom ñaar ñaar na muy waxee rek fekk madame Guèye dafa tere woon alxaaji Ibrahim wax ñaar ne DG buy lim sax ñaar da koy tëb ñu xupp ko mu fàttaliku <laughs> saxurla la merci madame ci rappel bi borom benn benn ku ëppal benn benn <laughs> xanaa xam nga madame Guèye ëppalu lan DG <laughs> ci sens bi nga déggee dama leen dàq ci rajo bi bokkuñ ci sukkaru koor gi <laughs> ñun waa bennoo lañu ba gi per yéem leen si benn jabar o DG moo mën a dugg ci barigoog tiir te du taq Haaj Ibrahim Gaye séddale na sukkaru koor gi borom benn yi ñàkk fayda yi ci rajo bi o DG tas na ay yaakaari borom kër naka lee góor dëgg yegg seeni kër ñu tëggal leen bërsi seeni soxna ñëw àkki si gaañ yëngal ko sëfal ko gësam ko Haaj Ibrahim lam dencoon ci këram lépp mu daal di kaa génne madame Gaye dikk Haj Ibrahim ana la nga tegoon fii DG mooma ñaqutooy xep ànd ak koor gi mu xiifati tàngooru nangaan wi mu marati DG muy joxoñ madame Gaye waa kër Cheikh Ndiaye yi ak oustaz Bachir Libaas ñoo ma doole <laughs> oh madame Gaye jéppi ko soo ndox bi mu yoroon la juutal ci kawam sotti ko xaaj Ibrahim yére yu tooy yittalu ko mu dëpp ca karo ya di jooy jooylu ba feesal kollam ah, ah, madame li nga dem jaaduwul allahuma la ko sumtu